président Ablaye Samb si benn parti bu tudd Front Patriotique Républicain parti bi nag damay wax si njëlbeen bi la tudd maanaam fa Arona Mbaye moom moo woon parti bi am na waaye après yàlla moo def parti bi egg si si loxo bi ñuy ne Ablaye Samb bi mu jëlee doomu Arona Mbaye soxna hérité parti bi parti bi nag bu ñu naagu ñun ñun waa Thiès dañ ci liggéey nii mais Dakar la sosoo moom laa doon wax léegi ñuy tenir briefing tey jii nii ñun si waa ginnaaw Dakar la ñu war a nekk mais li gën a am solo mooy ñu ngi def benn travail maanaam benn liggéey de massification maanaam pour ay mbooloo mun a imposer base bi fii samp ko di ko bureau bi fii dinañ ko defar dinañ créer aussi benn siège boo xam ne mooy doon siège yu parti bi Thiès fii lay nekk waaye toujours pour ma fàttali nit que ni parti bi Dakar la sosoo mu ngi tudd foo Fonds patriotique républicain mais bi muy tabb si loxo ki ñuy wax président Ablaye Samb moom moo nekk fii nii Thiès li ko indi mooy wéyjuru maanaam ki yoroon parti bi di maanaam fa Arona mbay yàlla moo ko jël ñu koy ñaan fa mu nekk yàlla na ko gënal fu fi mu jigéen lan ñun nag parti la boo xam ne parti allié au pouvoir tey jii nii Aliou Sall la ñuy liggéeyal te Aliou Sall ñëpp xam nañ ni moom rakku Macky Sall son excellence le président de la république ñu ngi koy nuyu sax au passage Aliou Sall muy nit bu baax koo xam ne tey jii nii moom ay jikkoom dañu gis si Ablaye Samb moo tax ñu ànd ak Ablaye Samb fi Ablaye dañ ko yàgg wax ni da nga war a def politique mais xëy na lu jot rek yàlla def ko parce que li ñu moom ba tey li ñu gis si moom lépp mooy liy dimbali askan bi dañuy gis ku dégg bëccëg mu ngi taxaw si ay problème askan di nga gis ay nit yoo xam dañuy dégg turam xamuñu ko sax ñëw ba bureau diis ko soxlaam mu fajal leen ko day jug guddi di dimbali ay nit kenn du ko yëg donc loolu moo taxoon tey ñu xam ni bu ko yàlla dimbali woon mu am yenn ndombu tànk fii si biir dëkk bi ñu nekk di Thiès tàmbalee ko fii après dem ba Dakar bu ko yàlla dimbali woon mu am ay ndombu tànk dina mën a gën a dimbali askan bi ba pare gën a taxaw si seen ay problème di leen doon tey seen interlocuteur entre ñoom ak son excellence le président de la république pour ñu gën a améliorer améliorer condition de vie population bu Thiessoise gën a aussi fexe maintenir outil de gestion yi fi nekk maanaam bërëbu liggéeykaay yi gën ko maintenir ko gën ko defaraat ba suba mu mun si gis seen bopp Ablaye Samb nit la boo xam ne wax dëgg yàlla ay jikoom a tax ñu àndal moom ñun defe naa tey dañoo jàng ba doon ay fonctionnaire xaaruñu kenn yoroon ñu suñu kër wala suñu dépense waaye wax dëgg yàlla nit moom bu defee lu baax da nga koy wax Ablaye sàmb nit ku baax la nit la boo xam ne tey Thiès bu bu leen yàlla dimbali woon ba ñu am ko si maanaam bopp districtive yi fi gën a am doole dina gën a mën a dimbali askan bi gën a gën a taxaw tamit tey jii ci li nga xam ne tey moom mooy développé dëkk parti bi nag moom du parti au du parti opposition wax naa ba sànq parti au parti allié au pouvoir la li ñuy njëkk liggéey nii fi ñu toll nii mooy préparer législative 2017 yi ba pare préparer élection présidentielle 2019 yi fexe réélire le président Macky Sall au premier tour vraiment sans benn problème parce que dinañ ci liggéey ñu ngi wut ñu ngi ba liggéey base boo xam ne tey jii nii Aliou Sall bés bu ñëwee fii nii dina xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi liggéeyal président de la république son excellence Macky Sall mais li ñuy ñaan aussi mooy Macky Sall préparé wu ñu ngi siy jëm ak moom nii indi ko Thiès def benn rentre politique boo xam ni moom dina xam ne tëdduñu woon di nelaw ñu ngi liggéey dajale ay nit pour suba bu fi ñëwee xam ne vraiment Fonds patriotique républicain parti bu juddu la waaye parti bu am doole la fii si biir dëkk bi. pour le Sénégal di ko ci sant nag di mu bëgg yëpp ko ci gis nañ ko ndax dañ koo nekk Sénégal ñu xool ko mu doy ñu ñu xam ne mën na ko yóbbu fu ñu bëgg Sénégal egg fa. yan mooy jafe-jafe yi ngeen nemmeeku. gën a nemmeeku mooy dundu askan wi dundu askan wi dundu askan nag bu ko waxee lépp ci biir lekk nga ci biir naan nga ci biir tali yaa ngi ci biir oto ci biir lépp Sénégal boo koy xool lépp dañoo sonn ñëpp dañoo sonn ñu xalaat na nag moom ñu na suqali Sénégal moo tax ñu jox tàllal loxo te mën a liggéey Sénégal rek ñu ànd ndax suñu parti la ñu rek. Merci.